su ko defee tey ñu ngi jàng al mabni la ñuy binaal wal mu'rab ak la ñuy i'rab tënk tënk ba mooy la binaal mooy loo xam ne mujj gi du soppeeku dégg nga mujj gi bu dee sukkoon sukkoon rek lay doon bu dee fataa foo ko mën fekk fataa lay doon bu dee kasara foo ko mën lay doon sukkoon bu dee eh, nu mu tuddati dàmm foo mën a fekk mujj gi dàmm rek lay doon du soppeeku ba mu dégg nga lu ñuy i'rab mooy loo na ne mujj gi dafay soppeeku. baat bi si boppam danga koy fekk mu rafan mu dam rafan léegi-léegi léegi-léegi mu nasab léegi mu jar léegi-léegi mu jasmu baat bi day changé dégg nga jar ak jasmu nag am na ñu ko jegoo danañ ci ñëw baat boo xam ne mujj gi day changé kooku mooy lu ñuy arab loo xam ne mujj gi du changé kooku mooy lu ñuy beneen tey si misaal saïd tur la ba nga ko dugalagul si jumla defagul dara waaye boo ne jaa dikk na saïdun mu rafan raayatu gis naa saa yi daan mu nasab maraturo mën bi saa yi din mu jar dun daan din baat boobu dañ koy arab xoola man ismu mawsuul jaa dikk na man naa day tuhu kama woo raaytu gis naa man naa day tuhu kama woo maraturo mën naa bi man naa day tuhu kon moom nekk na faayil jaa man naa day tuhu faayil la changé wut sukkoon rek raaytu man naa daytu ma foonoon bii waaye sukkoon rek maratu bi man naa daytu dañ koo jaree baagi waaye sukkoon changé wut loolu mooy lu ñuy binaa gis nga alamtiratu li mooy misaali ay na manzilu ko an sa ay na tasabu fan nga jëm ilaa ay na tasiiru fan nga dox jëm gis nga ay na manzilu ayna tadhabu ilaa ayna ilaa gi dugg na ci ayna gi waaye taxul nga wax ilaa ayni ilaa ayna ayna ayna ayna rek nga wax kon moom dañ koy bina dégg zabaxa rendi na aljazaaru buusi bi shaatan gàtt aljazaaru buusi bi zabaxa rendi na shaatan gàtt hal zabaxa ndax rendi na aljazaaru buusi bi shaatan gàtt buusi bi rendi na gàtt zabaxa zabaxa zabaxa فانو ما دي بيسنا سانزو بنيون ذبح ذبح ذبح فتح رك كون فانو ما دي نكاي بنال تي فتح ها لا موم دو سوبي ذبح ذبح ذبح غورنغ وخ من اي مكان تي بن برب جي اتي غدي كي جيتو ديكنا من منزلي جوغي سما كير اخذت جلنا من ابي سما باب نقودا وچت من اي مكان من jiitu min manzili axastu min abi min min min changé wul benn yoon kon min dañ koy binaal xaraf yëpp dañ leen di binaal fi'lu maadi yëpp dañ leen di binaal fi'lu yëpp dañ leen di binaal isim bi am na yu ñuy binaal ak yu ñu binaal jàpp leen ne yi seen mujj di sax benn place yooyu la ñuy binaal yooyu soppeeku duñ leen binaal da jàng si yeneen téere yu ko gën a leeral daa jàngal yéen ismu mooy yi nga xam ni ñoom dañ leen di binaal ak yi nga xam ne dañ leen binaal waaye loolu du suñu mawdu tey alxudnu katon imaadu sarwati mooy sukkandiku waaye koom-koom fii misra ci misra misra katon ci mooy mooy seen koom-koom janaa wis na alfallaahu baykat bi alxudna katon fii alxudnu mubtada la fii alxudna ma foonam bii la nu na gis nga changé na de tus nahu danañ liggéey almalaabisu ay yére min alxutni ci katon alxutnu alxutna alxutni kon baat boobu dañ koy inrab baat bu ñu inrab mooy di soppeeku zabulal lax na alwardatu fulóor chamimtu foon naa alwardata fulóor nazartu xool naa ilal wardati jëm ci fulóor alwardatu faayil la alwardata mafoonum bi la wardati dañ ko jare ila kon baat boobu maanaam warda dafay soppeeku parce que nangu naa dañ koy na parce que nangu naa soppeeku yusmiru dana meññi albustaanu tool bi lan yusmira du meññi albustaanu tool bi albustaanu tool bi lam yusmir meññiwut yusmiru yusmira yusmir kon fi'lu mudaaro dañ koy inrab parce que dafay nangu soppeeku fi'lu yi ñetti xaaj la fi'lu mudaaro moom lañuy ñuy inrab fi'lu maadi dañ koy binaal fi'lu amru dañ koy binaal jeex na xaraf yëpp dañ leen ni binaal duñ soppeeku ismu yi nag yi nga xam ne seen muj dafay changé yooyu la ñuy iraab yi seen muj du changé yooyu la ñuy binaa yàlla seen muj di changé ak yàlla seen muj du changé loolu beneen darf dégg nga waaye jàpp leen tënk boobu dégg nga albaaxsu lii mooy gëstu bi iza ta boo seetantalee alkalimaatu baat yi ay na ak zabaxa rend na ak min fii am talatil qismil awali ci misaali xaaj bu njëkk bi boo jot da nga fekk axira kulli kalimatin mu jëg bépp baat min haa ci baat yi saabitan mu aji sax ala xaalin ci benn melakaan waaxidatin ba da benn laa yataxayaru du soppeeku mahma taxayara ak nu mu mën a soppeekoo makaanul kalimati barab bu baat bi min al jumlati ci jumla bi ayna ak ak dabaxa ak min baat boobu foo ko mën a dugal si jumla bi du tax mu soppeeku ci commencement jumla bi ci digg jumla bi dara du tax mu soppeeku du tax mu soppeeku لول دا فيمال نلاني بلال فاخر كل مجا كيب من كلمتين سيار بادي اينا وزبها اكزبها ملازم دفا تقوري فتي الفتا في الامثله السابقه تي مثال جيت وفي غيرها اكثر من مثال يسخ فو فك زبها اك اينا فتح لا ني ديف مو مثال لي ولا فنن فوكو من فك واخر من مجا من ملازم دفا تقوري سكون يل سكون في الأمثلة السابقة مثال جيت وفي غيرها أكيد المثال كذلك كمنون من فوق فك سكون لي دف ما خم مثال يلا ولا يرن مثال من سكون لي دف لول دفع ولا زبحة أين أك من دلني بنا أك بار بخن مجد بين ملكان رجل تخو فوق من الدول سيم لبيت بين ملكان لا تخو لول بنا خم غنم وح ومن الكلمات بوكنا سبادي التي يخمني تصبر دنا سخ أواخر عسن مجد على حال واحدة تبين حال جميع الحروف مولم حرفي لب لي حرف رك بين حال لي تقو مانا مجد دو سانزي إن كوي بنان وجدت فيك آخر كل كلمة مجد ببات منها تحرفي وكذلك تكون نكون على فعل الماضي فعل الماضي وأفعل أمر أك فعل أمري من غير استثناء تلو ست mboolem fi'lu maadi yi bu ci génne ben lépp li fi'lu maadi rek dañ koy binal mujj gi ben xaal lay taxaw mboolem fi'lu amr dañ koy binal mujj gi ben xaal lay taxaw bu ci génne dara bu ci génne dara mboolem fi'lu maadi ak fi'lu amr seen mujj benn xaal lay taxaw وإذا تأملت بوسنا تلي الكلمات بادي القطن كتون والوردة أكفرور ويسمر يسمر جفيدنا مني am fil amtalati qismi saani ci misaalu xaaj ñaareel bi wajata da nga fekk aaxira kulli kalimati mu jëg bépp baat minaa ci ñoom yetaxeeru muy soppeeku min xaalin jugee ci xaal ilaa xaalin jëm ci beneen xaal bi taxayuri makaani yaa ngir ba euh, palaasu baat ba minal jumlati si jumla bi alxudnu ak alwardatu ak yusmiru fa leen dugal bu changé rek mujj baat bi masque ba changé dégg kon loolu dafay wane lañ koy إعراب فكلمة القطن ياري بعدي بني بما القطن كتون والوردة أكفلور قد تغير صبيقنا آخر كل مجكب من ما سيوم نار في الأمثلة السابقة تمثال جيت من الرفع جيش رفع إلى النصب جمت نصب ثم إلى جر القطن الوردة جيجين رفع القطن dem ci nasab alqutna dem ci jaar alqutni comme ni ñu ko waxoon wardatu it noonu kon loolu dafay wane baat bi dañ koy eraf wa kalimatu yusmiru baatu yusmiru taxayara soppeekoon axiruha mu jëm fil amtilati mutaqaddima ci misaal jiitu ay dan ba tey mi ne raf yu jugee rafaa ila nasab jëm ci nasab suma ila jësmi topp jëm jëm ci jësma yusmiru jugee na ci rafaa nekk yusmiru dem ci nasab lan yusmira dem ci jësam lam yusmir kon moom it dañ koy eraf baat boo xam ne masque mujj ga dana soppeeku baat boobu mooy li ñuy irab baat boo xam ne masque mujj ga benn xaal rek lay sax benn melokaan du soppeeku mukk sukkoon rek wala dàmm rek wala kësar rek wala fata rek loolu mooy lu ñuy binaan alxawaay tënk yi alkalimaatu baat yi tan xasimu dana séddali ko xismee ni ñaari xaaj maa xaaj bu nga xam ne yes budu dana sax aaxiru mu jëm ala xaalin ci melokaan waaxidatin benn baati ñaari xaaj la am na xaaj yoo xam ne ni seen mucc benn melakaan lay sax fii jëmee taraaki bi ci mboolem toggale yi maanaam noo mën a tëralee jumla bi rek moo xam baat boobu ci digg jumla bi la nekk ci peg bi ci mujj ga mafoonam bii la faay la dañ koo jar moom du changé fi jëmee taraaki bi ci mboolem toggale yi woyu sama dinañ tuddee loolu mabniyan muy li ñuy binaal loolu mooy li ñuy binaal loo xam ne mujj gi du soppeeku wamaa la nga xam ne yettaxeeru dana soppeeku aaxiru mujj ga woyu sama dinañ ko tuddee mu'raban lu ñuy arab ba am na baat yoo xam ne seen mujj dafay soppeeku bu ñu rafaayee damm bu ñu nekkee mafoon bi ñu euh, bu ñu rafaayee damm la ñu rafaayee bu ñu nekkee mafoon bi nasab maanaam ngaa nasab ko di fataa buñ bu ci xarafu jar duggee ñu jar jaree kasar loolu mooy lu ñuy arab parce day soppeeku moo tax moom ak xam ne te xeeru dana soppeeku aaxiru mujjam woyu sama loolu la ñuy tuddee mu'raban lu ñuy kon li ñuy mooy lan mooy loo xam ne mujj gi dafay sax benn place du soppeeku lu ñuy iraab mooy lan mooy loo xam ne mujj gi dafay changé loolu leer na al alxuruf xaraf yi kulluha ñoom ñëpp moom ñeetu dañ leen binaam maanaam kon xaraf mujj gi du changé ilaa ilaa rek la min kenn du wax minu mina min déedéet rek dégg ala ala rek du soppeeku rubba rubba rek لان كا كارك كاف خونغ عرف لا كارك دو كي كو كا دي وكذلك نقول جمع افعال الماضي مبولن فعل الماضي دي لين بنا امم نك دنج كنا يوك لير امنا انا مي لين بنا لي وجمع افعال الامر مبولن فعل الامر دي لين بنا ومن امنا انا مي كي بنا مبولن فعل الماضي خمل مجب بين مركان لي تقوك du changé mbooleem fenn am lu mujj gi benn melokaan lay taqoog du changé dégg nga su leen gisee maa di changé wala fenn amul changé changement googu dinañ gën a leeral lu ko waral mais du changement i'raab changement binaat la tamrinaat li ay jéemantu la limaza kaana lu tax mu nekk kalimatu daraja baatu daraja gi firi welo fil jumalil aatiya si jumla yi dikk mu'rabatan di lu ñuy i'raab wa kalimatu man baatu man nag mabniyatun di lu lu tax daraajatu daf leen laaj ngeen tontu xam nga wax naa leen lu tax baat bu ñu koy tuddee lu ñuy irab lu tax baat bu ñu koy ñuy binaa léegi nag moom dafa leen di lu ñuy irab ne lu tax ñu irab ne dañ koy irab indi la ñuy binaa ne lu tax dañ koy binaa daraajatu dañ koy irab dañ koy binaa lu tax daraajatu welo bi musriatun aji gaaw la gis nga nu ñu ko def rek ba war na aliyun aliyun darajata welo bi fariha bég na al waladu xale bi bi daraajati ci welo bi lu tax nga ne daraajati dañ ko inrab jàngal na ko jaa dikk na man ka nga xam ne naa daytu woo naa ko waxe bu bëgg naa man ka nga xam ne yu allimu ni dana ma jàngal man naa daytu man gi faayil la fii mafulun bi la man yu allimu ni aljaayisatu neexal bi li man ñaan la koo xam ne yes bi ku dana jiitu lu tax man gi nekk lu ñu binaan parce que nangam كيف تستدل نكنا تكتر بطريقة شيون علمية بيك جو خم خم على أن الكلمات الآتية نبار يريك معربة للإعراب لكن فخل جفن ديكو باري دوغل كو سي جملة وانا ندنكو إعراب كم ندف دراجت دوغل نكو سي جملة رفعان كو نصب كو جر يوتم في لمن رفعان رفعان كو نصب كو جر وانا ندنكو إعراب بريد بريد فعل لان نغرفان كو نصب كو جزمكو sukkoon ko jism mooy sukkoon wala dañ koy arab asamaaw asamaan dugal ko si jumla yu bokkut al misbaaw lamp al qalamu bik yaktubu dana bind yazraw dana bay yafhamu dana dégg waneel ne baat yi dañ leen arab kayfa tastadiru nag ngay tegtaloo bi tariqatin ci yoon ala anna al kalimaat al aatee ne baat yi dikk moom nii itam dañ leen binaat waneel ne baat yi dañ leen binaat mooy nga dugal ko si ay jumla te gisoo mu changé benn yoon كيف نكا عن رومبو لا لعل أمانة كتب بيننا فعل ما جرى انتصر غنينا افتح أبل كيف الأمر لكن يدو ورقو سي جملة تدو سانجة فور فور نغوالينا دن ليني يعني. دن ليني يعني. عرب إن أريد الإسلام استطعت ما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته